والقلم وما يسطرون di ziara ñëpp di ci yitte nag euh, kilifa ak yoon bi yëpp Cheikh mun Mountakha di ko ñaanal subhanahu wa taala yàggal ko fi ba taxawaay yi nga xam ne mi ngi koy taxawee ci yoonu sëriñ bi suñ borom sàmm ko ak mbooleem ñu mu àndal ñëpp ba mu àggale ko foofu ko kenn seen tuur Cheikh am Xadim ginnaaw bi ñu ngi fii ci Daaru Manaan kër Cheikhul Xadim radiyallahu anhu euh, li ñu fi taxaw nekk nag mooy ñetteelu jotaay bi nga xam ne moo jëm ci wàllu concours yaatal mbindum alxuraanul karim bi nga xam ne société C3S moo koy def ak mu jot depuis bii ne ñu juróomeelu at bi ñu ngi fii dee taxaw ànd ak Serigne Fallou mi nga xam ne liggéey bi yëpp ci loxoom la ko Alaaji Serigne teg ànd ak Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam ne moo eh, jiite liggéey bi comité scientifique ak commission yi nga xam ne tey ñoo daje fi ngir lan ngir tànn ñi nga xam ne ñoo war a pare pour dem final xam ngeen ne fii tey ñeent fukki candidat bind nañ semaine bële passé biñ bindee ba noppi nag tey biñ ñëwee def nañ fi lu ma toll maanaam ñetti commission yoo xam ne dañu war a ñëw pour topp liggéey boobu euh, ba mu mel ni war a mel ñu xam ñi nga xam ne ñoo war a dem finance ñan lañ ñooñu danañ tànn fukki góor ak juróom ñi nga xam ne ñoo ci ñoo ci raw ci ci wàll gépp ci wàllu gën a mën a mokkal ci wàll gën a mën a bind ci wàll gën a rafet mbind ci ci wàll yi nga xam ne noonu lañu ñu natt mbind jigéen ñi itam am na ci lu mat fukki jigéen fukki jigéen yooyu itam danañ tànn juróom ya nga xam ne ñoo maanaam ñoo ci jiitu commission yi nag am na ñetti commission yoo xamante ne bii benn bu ci nekk am na lu muy liggéey am na boo commission boo xamante ne bii seen Cheikhouna moo ko yore ñoom li seen liggéey mooy ras daraja lu ñu pare ñoom lañ koy ñu dugg ko ci machine bi am na ci ñoom la ñuy def mooy topp mbind mi wér na wala wérut topp yax bi wér na wala wérut bu ñu paree am na beneen commission boo xamante ne la seen mooy eh, mbind mi rafet na wala rafetut mu nekk liggéey boo xamante ne bii domaine bu ci nekk ñu ko jox jëmm lañ yoo xamante ni bi ñu ñu xam ci loolu lañ ñoom lañ ko dénk am na it ñoom li ñu woy coordination ak secrétaire ñoom ñoo fa nekk man foofu laa nekk ànd ak Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam ne tey foofu la nekk ak Serigne Khadim Niang ak euh, Cheikh ñi nga xamante ñoo ne ci euh, liggéey boobu xam naa kon ci tënk daal tey liggéey bi ñu fa indi mooy ñu tànn ñan ñoo war a dem demi final ci 40 yi nga xamante ne bi ñoom ñoom ñoom la ñu ñoo daje fii tey ñu topp seen i kayit mu ci delluwaat rek mooy euh, leeral yoo xamante ne bi pour candidat yi nga xam ne xëy na ñoom dañ jàpp maanaam ñoom euh, xamatuñ dara bañ déposé ba fi mu ne déggatuñ seen tur dañuy gis ne rek concours bi jeex na la ko waral mooy concours xam ngeen ne ab rawante lay nekk dañ naan nangam lañ soxla ñi ñëwoon maanaam mbooloo mu baree bari moom lañ doonoon ca première tour ba dañoo xool ñeent fukk yi nga xam ne ñoo ci gën a jàmbaare ñu dajale leen kenn ku nekk ñu woolal ne la ñëwal liggéey boo xamante ne bi ñett commission lañ ko defoon Euh, bu ngeen suivre kii gis ne nañu ko nañ ko defee woon commission bu bu pare jox ko benn noonu ba ñett yi pare ñu juboone ñeent fukki yi mbooleem ñi mbooleem ñi déposé au niveau national ñeent fukki yi ñëw ci gën a jàmbaare ci domaine yëpp ñu woo leen bi ñu la wooyee itam dañ leen a euh, teg jël ay ay ay ay muraaxibun ñu ñu leen di sàmm di leen xool ku nekk question yi ma leeral leen ci fii man mii question yi man maa ko doon préparé def ko ay enveloppe yoo xamante ne bii ñëpp ñoo ci yem ba ci man mii bi ma ko defee def pare kenn laa tànn ne ko defal ci enveloppe bi kaste ko ñëw fii kenn ku ne candidat bu nekk enveloppe bi ba mu jël moo ko tànnal boppam biñ ñëwee ñu ne ñun dañu tànn mën ngeen ñu ne leen ndax ngeen ñëw ci taabal ji wala ñu jox leen ñi ñëw ñëpp nee nañ nee nañ nañ ñu jox te suñ borom seeree na ne ña fa ñëpp ak man mi ñu ñoo ci yem ku ne nag la la nga xam ne moom la jël loolee moom la bind ba mu ko bindee maanaam ñu nekk ñeent fukki nit ñeent fukk ñooñee mooy ñi nga xamante tey ñoo toog fii pour corriger leen ñu xam ne liggéey bi liggéey la boo xamante ñi fi nekk fii ñëpp amu ci kenn kenn koo xamante ne bi xam na ca lenn bañ liggéeyee ba pare ña nga xam ne ñoo doon muraaxaba nga xam ne xëy na jàpp nañ ni man borom saam fekk naa ko muy bind masalan eh, way laa aadin kayit bi mu ñëwee ci man kayit woowee dañ ko jël def ci benn code boo xam ne kenn ci ñi ñi nekk fii du xam ku mu doon ku dul man mii man maay xam kooku comme ñuy topp fii ñëpp ay code rek la ñuy topp mënuñoo xam comme doon sañ Fallou mii nga xam ne moo jiite liggéey bi dañuy dem ba lépp noppi ba corrigé ba pare ba seen seexoon a génn résultat yi ñu ne ñu ne masalan code code niw sàngam kan la ma ne leen diw sàngam la ñu bind turam ñu xam ne liggéey bi liggéey la bu sévère boo xamante ne bii amul benn baralon amul intervention amul dara fii mbooleem ñuy corrigé muy kenn nga bokk ci képp ku am candidat boo xamante ne bii maanaam daa bokk ci concours bi mënuñu la nga bokk ci maanaam ñi topp ak ku mën di doon ak koo mën di doon boo xasee bokk ci ñi nga xam ne am nga candidat sa daara jël boo amee kenn ku fa jógee duto bokk ci ñi topp loolu defuñ ko lu dul ngir sàmm liggéey bi ñu xam ne liggéey la boo xamante ne bii buñ teg ci yoon la tey tam bàyyi na ci suñu borom bu baax a baax la ca topp ñu xam ne wàllu bind mi mokkal gi dañ ciy may ñaar fukki daraja ak juróom mooy gën jaa ci maanaam wàllu wàllu euh, rasmu bi yax bi nuñ koy bindee lay luy naar lu naarut la ca aju luy dag luy dog lépp ba mu jeex dañ ciy may ñaar fukki daraja ak juróom gën jaa bari soo ko balee mu nekk cinquante li ñuy wooye mbind mi sikki mbind mu rafet mbind mu rafet ci boppam li nga xam ne ay sikk ci lan ak lan la ñu ne loolu nañ ci loo xam ne maanaam danañ ci maye fanweeri daraja gën bari soo ko boolee mu nekk juróom mu nekk quatre mu nekk juróom-ñett fukki daraja mu des nag lan mbind mi rafet na wala rafetul loolu dañ cee maye maanaam ñaar fukki daraja soo ko boole mu nekk san sur cent loolu nag ñi koy liggéey liggéey la boo xamante ni bii liggéey bu méttee métti la laaj añu ci leeral xam naa mën na ma jox sëñ euh, mbokk sañ Mbacke Sorong mu leeral leen ko waaye daal seen bopp na ubbiku ci ngeen xam ne concours bi képp ku ci bokk suñu la wóowut na la wóor ne ñu ñu la dàq ñu la dàq bind fopp gën laa mokkal képp ñoo ñu woo la loolu moom na wóor ku ñu wóorul rek loolu moom na na sa bopp ngeen xam ne itam man mii ba responsable laaj ci lu bari laaj yi man mii naa koy defar enveloppe yi mën naa koy kaste code yi mën naa koy defar yàlla xam ne ne sëñ Fallou mii jiitu liggéey bi dara xamu ko ci te man amuma ci benn candidat loolu mu mu leen kon ku ñu wóorul rek na nga am sa sa xol bu dal ne daa am ñu la jiitu. ñoo ngi leen nuyu wax di leen siyaare sëñ Mbacke Sourang membre euh, scientifique commission scientifique Serigne Mbacke Sourang yaatal mbindal Xuraan waaw liggéey bi bu ñu ko bëggee tënk ci ni Sëñ Saam jeexale ginnaaw bu ñu sant El Hadj Serigne mi nga ne moom mooy kilifa gi euh, ak Serigne Fallou sekk mi nga xam ne moom la jël liggéey bi teg ko si loxoom ak Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam moom moo jiit scientifique ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy coordonné liggéey bi di ci taxaw taxawaay bu rafet ginnaaw bu leen sant te ñaanal leen suñu borom tabaaraka ko taala mu gën leen a sàmm ta taxawu leen seen jubluwaay ci liggéey bi mooy yaatal alquran alquran man fee des gën ñu gën di ko mokkal waaye gën di ko mën a bind mbind moo xam ne dafay dëppoo ak yoon kon loolu képp koo xam ne yaa ngi si taxaw mat ngaa ñaanal ndax yaa ngi liggéeyal borom bi tabaaraka taala liggéey boo xam ne ab liggéey eh, mënu féetewu ko kaw mu nekk loo xam ne liggéey bu am solo la boo xam ne ni ko Sëñ Sam waxee ci boo koy tàmbali bu ne la liggéey bi bi ñu waree ci régions yëpp ba liñ soxla àgg nañ ci six cent soixante et xam nga ay six cent soixante et ñoo xam ni seen alxuraan rafet nañ ñu bind ci biir six cent soixante yi ñu war see tànn quarante xam nga loolu liggéey bu liggéey bu jafe la tànn ñu itam ay façon la yoo xamante si ni ay ay ay ay ay commission la ñuy teg yoo xam ne duñ xam ñiy bind ñan lañu wenn kayit wu ñu yëkkati war koo teg mbooloo mi fi nekk ñëpp danañ jàpp ni bii moom mumtaaz la kenn du ko xool di sikk sàkk ci rafetaayu mbind mi ñu teg fële dana si am boo xam ne dañuy xool ni bii moom ku ko xool da xam ne bii ay la yéwén bokk na waaye war naa yokkaat loxoom am na boo xam dañ ciy sikki sàkk ñu teg ko ne bu noppee yiñ yiñ jàppoon ni moom ñëpp nee nañ rafet na nu mu mën a tool moom la ñuy càmbaraat càmbaraat ko ba xam danañ si am lim bi ñu soxla wala déet buñ ko si xësee am dootuñu soxla yi diggu doomu dootuñu soxla yi nga xamante ni moom ñëpp newoon nañ euh, moom melul ni mu a mel bu bee matul ñu mottali ba keroog ñuy am ñeent fukk yi nga xam ne ñoom ñu war a dem ñu war a def euh, demi final ñeent fukk yooyu itam ba yàlla dogalee ñu saytu leen tey jii ñu ngi daje si kër Serigne Touba Darou manaan comme ay ay ay ay commission yu tàqali ko ñu jébbal leen ko ñu di ko saytu mu nekk ñetti commission ñaari commission yi benn bi dañ koy jox ñeent fukk yi maanaam maanaam ñaar fukk ci li nga xamante ni candidat bi noo ko muy sumun mu xool ko xoolin woo xam ne bu mucc ayib la woo xam dana xool mbind mi xool masque xool mokkal gi xatta araf bu laal morom ji sax dañ koy moyen ci ci li nga xamante ni moom nga war a am si ay note ñeneen ñi itam dañ leen jox yeneen ñaar fukki rubu ñu ñen yeneen ñaar fukki sumun ñoom itam ñu xool ko xool boo xam ne bu jéggi dayoo lay doon waaye duñ si yem bu noppee commission 1 li mu xooloon dañu koy joxaat commission 2 commission 2 la mu xooloon dañ koy joxaat commission 1 am na groupe spécial boo xam ne ña fa nekk seen domaine mbindum alxuraan rek la rafetaayu mbind nga xam ne moom loola la ñuy xool ñoo itam dañ leen di jébbal ñeent fukki candidat yëpp ñu xool ñan ñoo si gën a ràññiku si mbind mu rafet ñu xool lan lañ leen di may yooyu yëpp nag bu ñu ko boolee mu nekk tànn goo xam ne tànn gu maandu la gu leer la bu noppee moom la ñuy jébal ñoom ñi nga xam ñoo ñooy ñoom si Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud ñoom itam ñu liggéey si liggéey boo xam ne kayit yi ñu leen jox rek la sa nekk si ay notes loolu la machine bi génne ku manti doon bugg machine bi xasee génne doxo loxo doomu aadama mënatu ko laal amatu sañ-sañu laal ko te bëgg nañ sax mu gën a leer waaye boo xoolee 661 ñëpp mënuñu see tànn 40 ñi des ñëpp kenn ku si nekk ñun la faute bi moo tax mun a dem ku ne xam ne loolu liggéey bu sévère la waaye loolu fañ koy defee mooy buñ xësee jéggi étape bii nga xam léegi final la ñuy def mbooleem ñi dem final ñëpp képp koo xam ne demoo final incha allah di nga jot reçu boo xam ne buñ la joxee li nga bind di nga xam li la tee li la tee dem waaye daal liggéey boo koy natt ci ak tàmbali ba ci ak jeex lépp luy transparence lépp luy ak maandu maanaam mi ngi si biir ba si jataay bii ñuy wax ak yéen yaa ngi si gis ay nit ñoo xam ne am nañ qualification lool lool ci alxuraan ba waroon a mën a bokk sax si ñuy tànn waaye bi ñu yëgee ne am nañ candidat dañ leen a génn teg leen fee mbooloo mi ñu fi nekk xam nañ ko ñu ngi si biir kon dafa yaakaar ne ak maanu moom foofu la yem lii nag kenn sikki sàkku si waaye booy liggéey ak mbooloo il nga xamal leen ni leen maanaam nii la liggéeyee nga xam ne kun jébbal saw kayit di nga xam ne nit ñi amuñu intérêt si nga am fukk ñu lay jox cinq wala nga am cinq ñu lay yokkal dix loolu moom yaakaar naa nit ñi am nañ ak amaana goo xam ne moo teg ci seen loxo ba loolu moom buñ leen doon jox ëdd naag li si leneen di ko di ko xool même yu daaw yi même ñi xam dañoo demoon final te gisuñu seen bopp ku si def effort tam jaral la boo boo boo introsé nit ñi jox la siw kayit nga xool nga xool nga xool li nga xam ne moom nga liggéey kon ne liggéey bu leer la boo xam ne ñi koy def seen jubluwaay mënoon nañoo def ni ñëpp dem toog eh, yor seen daal daara di jàngale waaye soññiwaat nit ñi te ñi siy jàll xam na ni am na njariñ kon li si li si li si fulla rek mooy képp xam ne gis nga ni te yàlla dogal na jàlloo nga yokkaat sa àlluwa def sa effort boo liggéey nga jàll parce que mën ngaa mokkal alxuraan mën a bind wala nga mën a bind lool ba sa mbind jéggi dayoo mais sa mbind sa mokkal lay des léeg-léeg nga mokkal lool ba ñëpp xam ne mokkal waaye sa mbind day des léegi nag ki boole man ki boole mokkal man alxuraan boole kook mën a bind kooku moom boo manqué benn nag bu ngeen joŋantee mu raw la noonu la dem waaye yëf yi moom wax dëgg yàlla leer na leeraay goo xam ne ñi si nekk xam nañ parce que tam daray daray àddina jarul nit ki taxaw ñu jébbal la ab liggéey nga di si liggéey nga di si xol la neen parce que boo xoolee fii ñi sëb ba di tege ñëpp ay nit ñoom ñoo xam yaakaar naa xam nañ masuuliya bi leen bi leen di xaar xam nañ amaana bi tege ci seen loxo kon ñu ngi daal xelu mboolem ñi nga xam ñoom ñooy liggéey te xam ne liggéey bi moom rafet na ku ku xam ku xam kàngoom alxuraan nag ñaare du bëgg daanu ñaare heure bu defee dara te gisul boppam rek dafay defee ne dafa am lu manqué waaye na góorgóorluwaat te xam ne bunt yi moom euh, lu ubbeeku la ci njëlbeen gi ba ci mujj gi lépp lu leer la ñaan borom bi tabaaraka taala àgg lañu si bañ jeexal ko si jàmm te itam li ñuy bari bari ñett itam ñooy ñeexal nga xam ñoom ñoo ciy gagné waaye mboolem ñu dem final itam kenn ku ci nekk société bi am na lu mu lay warlul pour soññ la koo gis mu jàll tey xamal ni def na ñaari yoon jàllut kon liggéey la boo xam ni te it kenn kenn kenn perdut itam xam nga tam ku mën a toog parce que booy topp nit ñi da nga xam ni ay jàmbar lañ nit ko xam koy bind loo su mun a xaaj nga topp ko ba mu jeex doo si gis ak mokkal bind mi rafet masque yi jub da xam ni ñëpp mérito nañ waaye nag xam nga ab lim moom fu mu daje il faut que am ñoo xam ni Euh, ñoom ñooy jiitu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man la Dame Touré coordonnateur yaatal mbindum alxuraan bu C3S. ginnaaw bu ñëwee ñu ngi yëkkati kàddu yi ci ndigalu suñu kilifa suñu nijaay fa Fàllu Sekk mi nga xam ne moo jiite kuréelu yaatal mbindum alxuraan euh, muy kàddu yoo xam ne ay kàddu yi. cant ak gërëm la gu muy def jëmale ko ci ñu yor liggéey bi rawatina waa commission scientifique ci njiitul sëriñ Khadim Ndiaye ak Serigne Moustapha Diop Ndar ginnaaw loolu muy foofu lay jàllale ak cantam ci Serigne Cheikhouna Mbacke ak sëñ Mbacke Abdourahmane ak kilifa yi nga xam ne tey ñoo teew nekk ñetti commission yi nga xam ne ñoom ñoo ñooy taxawu liggéey bi euh, ñoo xam ci sëñ Bass Dieng Njaareem sëriñ Amdi Moustapha Diop sëriñ Moustapha Gaye sëñ Mbàkke Sourang sëriñ Mortala Ndiaye ak euh, sëñ Mambal Silla sëriñ Alaaji Jaxate tamit mi ngi nale ak sëriñ Abdou Seck ak ñi nga xam ne ñooy laaj na xisaabaat bi waxoon naa sax suñ seexu naa Mbàkke nga xam ne moo ko jiite ànd koog ñoom euh, maam Cheikh Ndiaye ak El Hadj Ndiaye Ndindi mi nga xam ne mooy coordonné communication comité scientifique bi ginnaaw loolu tamit am na commission bi nga xam ne tamit ñoom ñooy toppaat gannaaw ñaari commission yi ñetteelu commission bi nga xam ne moom mooy xool mbind mu rafet bi loolu tamit sëñ Cheikhouna Sour mi ngi ci woon ak sëriñ yi sekk mi nga xam ne moo jiite kuréel bi ak euh, ñim ko àndaloon leneen li ci des daal mooy xeetu ak cant la mu ngi jiital cantu jëwrin mi nga xam ne saa su ne mu ngi jotale ay cantam di ko jaarale ci Alaaji Fàllu Sekk ngir mu jàllale ko ci commission bi gannaaw loolu tamit moom mu jël cantuk boppam goo xam ne mu ngi koy sant mbooloo mi ci saa su nekk buñ leen waxee nañ jug ñu jug saa buñ leen woowee ñu wuy si donte ñoom ñëpp ku ne xam na ne ay boroomi responsabilité lañ xam naa ne man mi coordonné liggéey bi nag mënumaa jeexal lii ndax man mi nga xam ne maa ngi ci kuréel bi tey te awma ci benn intérêt bu may wax ñi nga xam ne ñoo ci nekk comme niñ ko waxee amu ci kenn koo xam ne dina ci xam kenn ba koy faral wala am lum ciy féetale dafa tollook nag saa bu ñu defee eh, appel candidature nga xam ne daanaka dina xaw a jege junni nit loolu bu ñu ñëwee di ko tànn di ci tànn ñeen fukk te ñeen fukk yooyu buñ ko tànnee ba pare itam bu ñu demee kii ñaar fukk ñoo ci dem final te ñett lañ ciy tànn li damay dëggal li sëñ Mbàkke doon wax rek ne ñëpp ñi ko mas a gañe bi bi kii bi commencé ba léegi biñ créé kii yu yaatal bi ba léegi mësuñoo ñàkk a bokk képp koo gis mu nekk ci lauréat rek mës a tardé kon kon dañuy wax ñi ci nekk te bëgg cee bokk ñu bañ a découragé ndax saa su la ki dàq bind génnee yow da ngay mën a am sens su bokkaat te léeg-léeg tamit li ñuy rawante comme ni ñu ko waxee ay virgule ak yu ndaw lay doon sens tamit day am foofu waaye bu dee ci tànnin wi moom tànnin wu sell tànnin wu sell la ndax man maa ngi fekk lépp salaamaaleykum wa rahmatullah